yaakaar naa sama doom ji ak sama jarbaat bi li ñu wax euh, sama doom ji ak sama jarbaat bi li wax yaakaar naa doo sëkk du ma ci mën dolli dara waaye nag sëriñ ma Samba Kan yi dafa am lu lu ngeen di wax lu arab yi wax dañ laa takkul asli wa fasli abadan innama aslul fata maa maa xat asal mm-hmm. nit ki du jegee ni danaan samay bokk baax nañ léegi samay doom baax nañ man ma ni ci diggante bi nag baaxuma ni ci diggante bi mu mel ni wax nañ di nga ne moo jàll muy bokki euh, euh, sëriñ ma Samb Kani li tàmbale ci yonante ba ci sëriñ ma Samb wax nañ ko man nag fi bëgg a moo xaw a gën a xat ndax dama bëgg a tàmbale sëriñ ma Samb ba ci sët yi sët yi nag am na lu ma leen dénk ndax gannaaw seen maam am na lu mu def kon dana am dénkaane bu gàtt boo xam ne dana ñëw ci bu ma jeexalee naa leen ko indi ki gën le jarbaat Ah, sëñ bi waxal baagal maa ngi wax bokk bismillah waaw ki gën le bàjjan ki gën le jarbaat gën le bàjjan nday baay ci àdduna te gën le fuuf doomi nijaay sëñ Masamba Kanni moo gën li ku dul moom ki gën le jarbaat gën le bàjjan nday baay ci àdduna te gën le fuuf doomi nijaay mooy sëñ Masamba Kanni ngir ku dul moom moom moo la gën yii li waral kenn du moom sëriñ bu suybee baay ba soxna kën ni mbakke di yaayam moom yëmul ak kenn bàjjan ba soxna jaara doomi bàjjanam sëngum bi def yëpp muy seexul xadim jarbaan ya soxna may wa soxna xadija seex abdu xaadir mbakke sun te soxna may sëriñ bi ne cirub góor la fàgg woon ci moom ba tax mu mën góor ngir gëfi jóor rekk la jëf ba jóge fi man alxuraan taalif lu takku ba ko fi soxna xadéet ku nekk xam ni mu fonke ak bokk nag li mu ci jëf ñu fekkee Cheikh Moustapha Mbacke magam ju baax ja jëf ju rafet jëmu ca jëf ca wopp ja daa bàyyi woon këram ga dem tox daa bàyyi woon këram ga dem toxu fa di toppatoo jëmam ja rek ba tooyee fa yàlla dogal moo jiitu far Cheikh Moustapha ay fan yu néew kaana xuluqaha safa Cheikh Abdou Khadir ay mbiram nit jant la leere nañ ñi soppe yépp a sant soxna Aminta bàjjani murid yi jërul di wax mbiram nde boor na nopp yi ma wax digganteem ak sëriñ bi ñaari yëf mu doy sëkk moom lii mu def kenn du ko def sëriñ bi mag bi mas na ko woo benn bis aminte looy fàggu ci fii ak booba bis ni sëñ ma sàmba kaane ami positif ñoom ñëpp nañu am positif mu ne ko man fàgguma lenn lu si jëmm ji ndax ku fa amul lu si jëmm ji ëllëg dana ko rëccu moo tax sëriñ mag bi mas na ko woo benn bis aminte looy fàggu ci fii ak booba bis mu mu daal koy mu daal ni koy mbàkki fàgguma ca fee ak file lu dul jëmm ji sëñ bi ne bis penc ku am lu dul man dana ko sànni jaaxle wéeru leen ci man yaqoodu lii wala yaqoodu min nii ilaa li man situ bi isnin min nii aminte yéen nu ngeen di def ak fere yi yéene ci seen wanag yi nag ci kër yi sëñ Tuubaa ni ko seen fere yi ne ci wanag yi nu ngeen def ak ñoom soxna aminte ni ko bu ñuy liggéeyal nag bu ñu lay liggéeyal nag nu ànd koog yow ngir xam ne mbàkke yow sa pay gi dana woom mu ne ko xaakasa aminta noonu la sunu borom li ma may lu bari la waaye ba fii mu nekk nii mayuguma fay ku liggéeyul ku ko wax de tooñ na ma malaaka yi fay buñ dikkee ñu doon liggéey képp la ñuy fay sonn leen ci seen liggéey soxna aminte lii la xam teel a liggéey moo tax njabootam gi amul kenn ku géey sëriñ ma sàmba kii di ab jigéenam sëriñ bu mag bii moo di doomi bàjjanam maam soxna jëró maam soxna jaara busa moo di bàjjanam Cheikh Abdou Khadir Mbacke mooy jarbaatam ak soxna May ak soxna Xadi baayam sëriñ bu ñii di ñooy cosaanam moo tax mu gën ba noppi gën ay bokk wurusu doon piir la wu leen raxu ko juróom a ngi yoo xam ne yii gën la ko ko du yomb nag xaaral ma ñëw tënkal la ko yooyaa di jarbaat bàjjan ak ndey ak ak doomi bàjjan seetu leen ko gaayi waay moo xala kon ak jébbaloom ci sëñ bi nga xam ne nag bàcce waral pas-pas bi fu mu jubaa sëriñ bi dey raam nib liir mu agsi nag sukk ci woomi sëñ bi goor jébbalu naa jébbal si naa saa lépp jébbal si naa la sama bokk yépp sëñ bi ne ko ma sàmba nongol nañ la ko sëriñ ma sàmba kanni xaacu ñaan ko ni ko sa bopp laa bëggoon nga may ma ci dara lu waaye di am te amul amul dara sëñ bi ne ko ma sàmba kanni xër nga sëriñ ma sàmba kanni waaye xam nga ku mën a tontu la mu ne ko ku ñaan ngir yàlla ak yonent nga may ko la ñaan sëñ bi ne ko may naa la ko loolaa waral nu am imaam ju mat ju kenn werantewul Cheikh Abdou Khadir niru sëñ bi jëmm ja ak sopp yeneen ba niru ko jàmm ja waaye nag euh, li ngeen dikkoon ci mag ñi ngeen waxoon wax ne mag ñi fi nekkoon ak sëñ Tuubaa ak ñi nga xam nekkoon ak yonent bi waaye nag kon gannaaw damaa tàmbali sëñ Masamba Kanni mag ñi nekkoon ak ak ñi nekk ak sëñ Masamba Kanni ak njabootam waxoon ngeen ci Cheikh Ibra Fall li ñu ci waxoon léegi nag nu ñaana laale Cheikh Abdourahman mu am fa ridwaan duggi baabu ridwaan muy bàyyi suñu samba fonkoon ak bokk amoon ak taalube yaroon njabootam ba njabootam niñ jube kenn du leen dégg ci lenn lenn luñ wërte def te duñ ko laal sax fenn ñoom maanu nañ duñ laal fenn ci waaye nag Cheikh Ibra Faty ni meloon ci sëñ bi Cheikh Ibra Fall ni mu gëme woon sëriñ bi Ibrahima ñetteel bi moo di Ibra Faty Diop la ñuy ji woon lépp de yàlla na ko góob pas ba ba sëñ ma sàmba kën yore woon ak bëgg sëñ Tuubaa nga nam ci xire woon mi ngi ci Ibra Faty Diop mi ngi ci Cheikh Ibra Faty Diop mi le sëriñ ma sàmbaay baay ba Ibrahima doom ji le si borub sëñ Tuubaa bi jeex ci sëñ bi jox sëñ bi léppam ba mu nguróoñ xolam bi sëñ Abdou Fatty Diop du yomb maasam ci sopp sëñ Touba nderaw nag maasam sëñ Abdou Fatty Diop Cheikh Abdourahmane yàlla na yàlla doon leen ay kër jinaan yàlla nañu gisee sëriñ Massamba Kanni ñu am fa lool ñeeti kenn kon na ma disaat ci euh, ki nga xam ne moo tax a jóg yëf yi muy euh, sëñ Massamba Kanni waaw ma dellusiwaat ci sëñ Masamba Kanni nga xam ne nag moom yëmuloon nag kenn sëriñ bi mas naa toog ba guddi gi lëndëm mu woolu kenn nag ci mag ñi nee na dem seetal ma nag fere yi waaja daal di dem seet mag ñi ñëpp nag ku ne mu dem këram sëñ Tuubaa daa toog ba guddi mu ne dama bëgg nga dem xoolama fere yi kenn ku nekk nga xam ci lu mu nekk waaye ba mu dikkee ah waaw góor waay ba mu dikkee ci guddi ga ba mu xam wax ni guddi ga guddi ga mu nekk demal seet ma fere ba xam ci luñ nekk ba mu suñ nettali na lépp luñ nettali nettali na nett na juróom-ñaari nit kenn kon lam nekkee jurul nettali gaa suñu ma sàmba kan yi moo ci ñor mel na ni gaa yi ngi barkeelu sax waaw léegi ba mu dikkee mun leen euh, léegi li ma war def mooy wax na juróom-ñaari kenn kon suñ tubaa nekkee waaye mu wax ko la suñ ma sàmba kan nekkee la suñ ma sàmba kan nekkee la ci bi tontu kon juróom-ñaari ña ña ngoon ca dara waaye comme mel na lii mu nekk dara la moo tax mu ne ko ba mu ñëwee mu laaj ko nag nu mu leen fekkee ku ne ci ñoom ak ci ak ci yeen la nekkee mu ne ko sëñ ma samba kan ni fekk naa mu laxasaayu bàgg baat ba digg naa mu wax ni jaajëf sëñ ba mbag bi ca kaw ñaqama wër koy toq toqi mel ni taw sëñ bi ni ko loolu lii de foogoon naa ko ma samba positifam ci man xam naa ko foofee mu ne ku fa néwul ci ak ronam nga nekk fay leen waa ji naar bi xoromam saa bu ma saa toog fi sëñ bi day toog boofu ku wax ca kaw da koy daal koy góof te alxuraan da koo mënoon rafetle ko buy jàng day leer nañ ñi xam-xam am na ko gone yi wax nañ ko kon du jël ba ci dikkaat ku waaru woon la nag ku daa waare itam iñaanewul woon kenn kenn ab ciram ne asamaan mooy sëñ bi kuy buux buux loo da koo xamul jërul ji coow ak a xuloo soppoon na Cheikh Ibrahima Fall jàmbaar ja lim xel ci sëñ bee tax bëgg mu xër ca soppoon na soxna Faati ja li ko waral taalu bi ga daana di ko jëfal sari xato xaqiqatom lépp matom makaarimul axlaaxi piir la amee woon looloo taxoon sëriñ bi jegeel ko boppam di bég ci lool mu teewe aw waxtaanam sëñ ma Samba Kaani mas benn bis ba mas a wute sëñ bi waxtaan ba noppi am waa ji yiwul ne fa daan ni bi ah loolu de sew na lool sëñ bi ne sama dara siwul nañ ma woyul ma man sama dara siwul ba ñu woyee sëñ ma Samba Kaani mu jaaroon fa mu jaaroon ngeen dégg li sëñ ma Samba Kaani toll wax balam tontu nga xam ne bokkut gaay sëriñ ba mag bi su ma saa di tombo day daal di wax ne wooyu leen ma sàmba ma sàmba kandi ma kandi sàmba anta ceebo ñooy ñaari sàmba yi sëriñ bi sopp sëriñ ma sàmba kandi mas naa wuute sëriñ bi tomb nag ba noppi woote mbooloo mi toog xamuñu jublu sëñ bi ñoom ñëpp noppi kenn xamul baatin bi am waa ju yëwu yëwul keroog ju fa newoon naa sëñ bi loola sew na ngir xamu ko woon sëriñ bi tontu ko ni saa lenn siwul xanaa ma sàmba kandi tey daa teewul ñu ne ko déedéet mu ne dem leen wooye ko ba mu dikkee sëriñ bi tombaat baamtu ko sëriñ Masamba Kanni yëf ji def ko xaal muy fàtte sa naa Mbàkke lii raw nam xel mu ne ko xaaka saa Masamba tontu ak xambaxin day tax sa mbir du laatu mu ne ko tontu ak xambaxin day tax sa mbir du laatu moo tax moo tax bu fas dégg nga man ah maa ma ñëw moo tax ba bas naa toog fi sëñ bi soj ma sonal ko lool teewul ma ànd ak xel ma ku amoonum xel la woon ku am positif la li ngeen waxoon ndax am xel mooy lu mel nii sëñ Massamba Gueye dafa toog fi sëñ Touba ba mu toogee ba yàgg mu soj jàpp ko mu tesi ne alhamdulilahi rabil alamina sëñ bi ne ko yarhamukallah bu doon ñun ñii dañ fay jéem a nekk di wax yooye mu nee na sëñ Touba yërmande yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamina la wax neen nag ma toog fi sëñ Touba sëñ Touba ne ma yarhamukallah yàlla na la yàlla yërëm te man yërmande yàlla dong laa doon wut ne ceelu tontuur sëñ bi sëñ bi ne ko waaw lu tax yow néewoo yahdikum laahu mu ne ko yahdikum ko wax ci yow ku naan ku naan yàlla jubal la kooku mooy kan nga xam daa tàng ci sëñ bi ne ko yàlla yàlla lu yow nga jubba na fi yàlla ba ma ko kon kooku xam nga fa ne ko sor na moo tax mu ne sëñ ma Samba Kani eh, eh, waaw dégg nga moo tax ba mas naa toog fi sëñ bi soj ma sonal ko lool téewul ma ànd ak xel ma mu daal di tisli daal di sëriñ bi mag bi ne ko yarhamukallah mu dal ne amiin sëñ bi mooñ nag sëñ bi mooñ nag wax ko ni ko lu tax yéex di ku ma waxoo ko mu ne ko mbàkke yow delloo ñaan buur buur nangu yërmande yàlla laa bëggoon nag dong yàlla jubal na la ku naa yéex di ku moo jëme ci yow kookam xelam daa mam sëriñ ma sàmba kanni mas naa ñëw ba tey sëriñ bi wax ni sàmba indi saak may max naa li war doomi jaay ci xeeti may ci doomi bàjjanam ma sàmba daal ni cëy ah Mbàkke yow de yaa di sangub ñëpp ndongalu xeebu laa di sas njaam képp mu ne ko ma sàmbali suñu borom moo ko dogal te kenn du dindi nag lu suñu borom dogal kon nag naa tënk foofu te indi leen ci tënk eh, nit ñi ñu war ci waree ndax di ko diglu nii rek te buñ demee bañ koy kii dafa am benn waxam ne maa ngi doon dégg mën na fukki at eh, guddul ngeen xam naa ko gudd na waaye li may wax du gudd waaw dégg dama ah, dama ko doon dénk muy sëñ Moussa Moussa Bousso moom ma ne ko ci cantuk borom bi laay ubbee ñaan ci yërmandeem judul dog mu daal koy def ci yeneen bi ak ñoñam Lamine dénk boppam fii te dénk fi Moustapha bu sam bàyyi sëriñ luy tax na raw lor te dab ngërëm na ngay sàkku xam-xam Moustapha xam dafay lu war ci boppub julit raw na murit tey mbusoo bi tam murit bu mbusoo bi yaa ci raw sëñ Tuubaa ne woon na seen wàll mooy jàmm yàlla kon dañu war a jàng xam-xam waxoon naa ko na ñu bari mer waaye nag loolu laa waxoon busaak busaa bokki max naa ñoom defar la xam ku leen di bañ di pikk ak yàq nga def ba mbubu xëtee bu saa ñëw ñaw ko mbubu jagaat ba diine giimee bu saa ñëw wal ko muy xalundeef sëñ Tuubaa fi indiwaat yëf yi tàkkaat moo tax nag ma ne Lamine dénk boppam fii te dénk fi Moustapha bu sam bàyyi sëriñ luy tax nu raw lor te def dem nga dem ngërëm na ngay sàkku xam-xam Moustapha xam dafay lu war ci bépp jullit raw na murit tey bu soobee tam na ngay fonk it yow sab liggéey bul ko sàggane te looy def na dëppoog sunna kon lee nga làqi ndam xasaayid yi nii nga koy jàngee baax na te sell na te it alxuraan jii nii nga koy def na jëm kanam bu soobee sëriñ bee wax ni diinee di seenu sas ndegam yaa ngi ci sas waay bay mu ñël rek te fas ci jom te bul yàq bul toqi te bul yoqi bul taqal mbubum diine mii ngay sol na weex tàll mooy sa ndam te xam naa ne sàggan sax defoo ko ko farlu nga du tee nag mën a waaw góor di soññeeka naab itam fexeel nag ba sampi daara woo réew mi ñëpp ñëw nga yar leen te jàngal leen ba ñoom ñëpp jub te xam ki gën mooy ki xam nag alxuraan jii te xamle ko seen ñaari sët ñi ñëpp jàngale alxuraan la ñuy def te ñu koy xamle gars yi baax lañ muy sëñ Seexuna Buso mi ak sëñ Masamba Buso kon mel na ni sët yi am na sët yoo xam ne ñu ngi xor-xorol moo tax ma ne fexeel nag ba sampi daara woo réew mi ñëpp ñëw nga yar leen te jàngal leen ba ñoom ñëpp jub xam ki gën mooy ki xam nag alxuraan jii te xamle ko te mooy kook Serigne Touba da koy def ci biir xolam Serigne Moustapha maag yow sunu dénk lii la woon jëlal nag te sax ci muñ ku muñ mucc am ndamam na naboru yàlla fay nu yiw te def yiw ci mustafaa te nangul na mboolem jëf yi lu ndox mu doon xikam xam ay xikam rek laa fi wax yi defal nañ ma ko ba yàgg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di ñun nuyu ci nuyoo bi gën a tedd muy nuyoo bi islaam di jiital ci nuyoo bi sunu sang sunu sëriñ sëriñ bu Bousso ak mbooleem njabootu eh, sëriñ Massamba Kanni Bousso gi yëpp di nuyu itam eh, sunu wayjur Baye Cheikh Diop di nuyu itam mbokki taalibe bi yëpp ak mbokki dëkkandoo yëpp bu ko fee kon dañuy tënk rek ci lu gàtt ndax waxtu moo xaw guddi ñuy tënk rek ci di nga xam ne moo dox suñu diggante ñun taalibe yi muy daayira wi di daayira Sëriñ Masamba Kanni Bousso daayira la boo xam ne sos nañ ko lu yàgg waaye ñu dem ba def ko ci li nga xamante ni ab fédération la boo xam ne dafa lëkkale mbooleem euh, daayira Kër Sëriñ Masamba Bousso yëpp ci ndigalal sëriñ euh, Serigne bu Bousso xalifa sëriñ ma Massamba Kani Bousso nga xam ne daayira boobu itam yaatu na lool biir réew mi ba nekk ci bitim réew fépp itam euh, biir dëkk bi ak li nga xam ne moo war dëkk bi yëpp itam kon daayira fenn bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn itam kon ci loolu rek ci lañuy euh, soññ sunu bopp di ci soññ itam mbokki taalibe yépp itam ndax dafa nekk ab liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la te itam ab taalibe amut lu muy liggéeyal eh, sëriñ bi ndax ab taalibe eh, wërta taxaw naan su ma fekkoon jamonoy sëriñ Touba wala su ma fekkoon jamonoy sëriñ diw ba defal ko nangam ndax suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon jamonoon teg sëriñ Touba Xaadimu Rasuul seen itte yëpp defoon nañ ko ci liggéey sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ba am ci ay ngërëmam eh, suñu maam yi nga xam ne ñoo jamonoon teg sëriñ Masamba Kanni Bousso jëloon nañ seen itte lépp teg ko ci liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak Cheikh Massamba Kanni Bousso ba am ay ngërëmam sunu baay yi nga xam ne ñoo fi nekkoon jamonoon teeg waa kër Serigne Massamba Kanni di ay doomam ñoom itam jëloon nañ suñu itti def ko ca loola ba làq seeni ngërëm kon ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk jamonoon teeg ay sëti Serigne Massamba Kanni Bousso ñun itam ca loola lañu ñu war a tegu jël suñu itte jëpp euh, laxasaayu nag takku nag ànd ak sëtam yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jamonoon ñoom Euh, ba nga xamante ni bii ñu nit daañu jot seeni ngërëm kon kenn warta wax bu mu fekkoon jamono seen diw ndax kenn ku ne am na koo jamonoonteel ka nga jamonoonteel def ca la nga xamante ni bii moom nga yéene woon a defal ka nga xam ne moo la jiitu woon loolu mooy seere si kon loolu moo tax daayira yi ñu formé ko nag euh, mu nekk loo xam ne euh, dañ ciy woo ñëpp itam nag ñëpp muy góor ak jigéen fépp fub taalu bi ma ni nekk ba tax na def nañ ko fi lu toll ci ñaari at yoo xam ne jébbale nañ ko ci ki nga xam ne mooy euh, Serigne bu so yàlla na fi doole yàgg ak mbooleem njaboot gi yëpp ak taalibe ba ren ji itam ci lañ ko jébbaliwaat ñu fas yéene nag liggéey bi ndax saa suñ jébbalee rek dañuy daal di euh, tàmbaliwaat li nga xam ne moo jëm déwén. daayira bi nag ni muy doxe itam dañoo jëloon kër yi nga xam ne ñoo seq Serigne Massamba bu so di ay euh, doomam li ci ne kër Serigne Dame Bousso ak li nga xam ne mooy baay Serigne Maram Bousso ak baay Cumbuleen Bousso ak baay Abdourahman Bousso ak baay Ibrahima Bousso kër gu ci nekk ñu jëloon fa boole ko def ko li nga xam ne mooy bureau ñu taxawal daayira bi loole itam ci lañ di dox nga xam ne kenn ku ci nekk itam yaa ngi réunion ci ayu bis bu ne da ngay réunion waaye suñ demee ba weeru tubaab bi ñëw nga xam ne ajjuma ja ca jiitu ca lañuy ñuy def réunion fédération nga xam ne day répp dañuy àndandoo daje fi benn kër mbokkum taalube ñu daal fay def réunion noonu lañ ko tàmbalee di ko wéyal ba fii nga xam ne fii la ñu toll itam nga xam ne li nga xam ne moom la ci ruuse itam ñu di ko jébbal sëriñ bi sëriñ bi itam di ko defaat ci liggéey sëriñ Tuubaa Xaadimu sol nga xam ne kon loolu euh, nekk na tawféex ju rey rey ndax ab taalube bu gisee sëriñ bu koy liggéeyloo ci yoonu sëriñ Tuubaa Xaadimu sol war na cee sant bu baax borom bi sant ci itam ka nga xam ne moo koy liggéeyloo ndax liggéey sëriñ bi yombut kon képp ku la koy defloo rek ma ngi lay xëcc jëme la ci njariñ ndax loolu moom rek la ab taalibe war a xinte euh, kon taalibe bi nag euh, may soññ sama mbokk taalibe yi ndax ab taalibe ba nga xamante ni bi dafa sukk ci kanam sëriñ bi jébbal ko boppam àdduna ak kon taalibe bi dafa war a xam ne amatul dara ci jëmmam ci àllalam ci njabootam te itam nag mu xam xel nag ne sas na ñaari sas yoo xamante ni wenn bi daf koo sas boppam wenn sasu itam mu sas ko sëriñ bi ndax su fekkente ne da ngaa wax ne jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira kon yow sas nga sa bopp sas wu rëy ndax waratoo def lenn loo xamante ni bii lu dul itay bi la wala ngay def lenn loo xam ne lu lu lu dëppoowut ak ndigali sëriñ bi la kon ku jébbale sa bopp moom moomatoo sa bopp moomatoo sa alal moomatoo sa sa njaboot lépp da nga koo jébbale ndax wala fi dañuy wax ne nee na ganaar lépp borom ginaara moom kon sas woowee nag na nga góor ba bu mu booy te ñàkk gaa booy mooy nga tënku ci ndigalal sëriñ bi Euh, nekk ci ay ndigalam guddi ak bëccëg ay yitteem bañ a xam say yitte ndax loolu la sëñ Tuubaa Seex bu Lahat waxoon mu ne ab taalibe bu ay euh, ndigal xam ay yitteem kon saa bu ndigalal sëriñ bi jógee rek itte joo mën di am rek na nga ko fànq waaye lépp loo xam ne liggéey sëriñ bi la itam na nga ci góorgóorlu baax a baax itam bu ko defee weneen sas bi nga xam ne sas nga ko sëriñ bi itam mooy ku ne xam na ne rëcc-rëcc yu bari yi nga xam ne moo nekk ci ñun taalibe yi nga wax sëriñ bi ne ko jébbal naan sama bopp ànd ak alaxira mu nangal la ko ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fas yéenee jàkkaarloo ak borom bi subhaanahu wa laa nag di la tinul fii ak fanu jëm kon kooka sas nga ko sas wu rëy wu diis a diis kon sëriñ bi la nangoo gàddu loolu nag yow itam war ngaa fexe nag ba gàddu ci àdduna loo xamante ni mii nag lépp loo xam ne ay ndigal la nga nekk ci waaye lépp loo xam ne ay tere la tam buum la ci seen ndax dara gënta doon ab gàcce ci ab taalube dem ci sëriñ bi di fa woote ndimmal muy ñëw di la tinu loolu gàcce ci ab taalube taalube bi nu ne ko mooy ko waaye taalu bi bu ñu teem na na fexe nag ba li nga xamante ne bii mooy mooy mooy mooy liggéeyu sëriñ bi nag mu nekk ca ndax kat kenn koo xam ne kii da nga uh, fayyu loo xam ne loo jëful la amut ndax bàkk murit mooy jëf jël ku jëf jël ku jëfutit doo jël nag kon dayre bii nag uh, dañ daan dem ci tool yi di bay ay tooli àllarba loola amatul ndax léegi ñoo ngi ci dëkki taax yi kon daayira moo fay wuutu li nga xam ne mooy tooli àllarba yi kon képp koo xam ne kii yaa ngi ci biir réew mi ak foo mën di nekk ak bitim réew yëpp ñu ngi lay woo ci daayira bi nga ñëw bindu ci bind ci sa waa kër te ni nga xam ne noonu la daayira bi di doxe itam ñu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko dox ci na nga xam ne noonu la gën a waree itam ndax kenn koo xam ne kii itam doxoo ci daayira bi itam yaa ngi dox ci leneen loo xamante ni bi daayira bee ko ëpp solo fuufi ndolle ba daayira bee ko solo ndax li nga xam ne mooy tegu daayira bariwul waaye kon nit ki li muy ñàkk ci bis rek euh, xajut ci euh, tegu daayira kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax nit ki nag dafa war a xam ne nag Euh, ki nga xam ne day sëriñ bi moom li muy am am na ko ba noppi bu yàgg lu jiitu kon li nga xam ne moom la ñuy dajale di ko jox sëriñ bi itam nañu wóor ne sëriñ bi lekk ko naanu ko ab denc la boo xam ne dafa ñu koy dencal te nag fañ koy denc nag euh, képp koo xam ne kii dencoo fa itam doo fayu ndax sëriñ Fallou Mbacke dafa waxoon ne euh, addunaa ngi nii diwa ngi diwa moomoon li diwa dëkkoon fii kon diw amatut foofa dara waaye dëkkatu fa itam lu ko xañ mooy faatu waaye mu wax itam ne cay yàlla mi cay àdduna mi cey bàmmeel mi mu ne cay yàlla mi soo ko jàppee mu jàpp la soo ko jàppul itam mu jàpp la nan ko jàpp bala noo jàpp jàpp yàlla nag mooy nga gëm yàlla gëm gu wér dëggu tey liggéey di jaamu yàlla tey jëfal sëriñ Serigne Touba Xaadimu Rasuul loolu mooy jàpp yàlla waaye li nga xam ne mooy bàyyi adduna itam mu ne nag addunaa ngi nii soo ko baa mu bala soo ko bawuti mu bala mu ne nan ko ba bala noo ba ba adduna nag weesuwut maanaam lépp loo xam ne ay mbóorante la ak caaxaan lu jëmut fenn nga ba ko te jublu ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne cay bàmmeel mi soo ci defee ñu def la ci soo ci defulit ñu def la ci nan ci def bala ñu ne cee def kon ku ne xam na ne bàmmeel ku ci def ñu def la ci ku ca defatut ñu def la ca kon nan ca def bala ñu ne caa def li ñuy def ci bàmmeel du loonu lu ñuy tibb di ca sotti waaye jëf ji moom lañ cay def maam Ceerno Ibrahima borom daarul Muxti daal di wax ne ñetti fii la yi kenn ku ne war na ko bàyyi xel fii la juddoo fii la yaroo fii lañ ko denc nee na saa buñ ne fii la juddoo ne fii la yaroo bis dana ñëw ñu ne fii lañ ko denc nee na bala ñu ne fii lañ ko denc fexeel ba denc fa dara kon lañ fay denc mooy jëf ja euh, sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daal di wax ne wa arxabul asyaai lil amwaati raddun ila dunia mal xayaati walaw suwaatan faqat li yamaloo saalihatan tan fam in xafaloo mu ne kon euh, ki nga xam ne dafa faatu bañ dugal ko ci bàmmeel ba wëlbatiku wan ko ginnaaw day la nga xam ne mooy mébétam di xemmemteefam lépp mooy dellu siwaat ci àdduna donte daf am as ndiir su gàtt tam mu am ko fi ngir mën fee jëfaat lu baax loo xam ne bu delloo dina ko jëriñ te loolu faat na kon nag diir bi nga xamante ni ñoo ngi nekk ci adduna di ci dund te demagun foofa nanu góorgóorlu suñu itte yëpp ñu def ko ci jaamu yàlla ak liggéey ak liggéey sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax kat képp ku fi nekk ku ne na la biir ne ku am jàmm sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la waaye kon ki nga xam ne moo ñu booleeg Serigne Touba Xaadimu Rasuul di Serigne Massamba Kanni Bousso nanu sax dàkk ci moom nag seey ba jeex ci moom ndax ka Serigne bi moom kenn ku ci nekk na nga ci daanoo rek noo nga ci daq déegub dax la soo laalee sa baaraam mooy tax waaye soo dugalee sa tànk mooy tax soo ca daanoo itam noona rek kon kenn ku ci nekk fa nga toll ci Serigne bi yaa fa tollale sa bopp kon li may soññi sama mbokk yi daal mooy ju gën a góorgóorlu ci daayira bi xam na daayira bi semaine bu ne daayira yaa ngi réunion réunion fédération bi ah, weer wu ne ajjuma ji ca njëkk muy weeru tubaab képp koo xam ne ki yaa ngi dëkk ci dëkk bi wala nga nekk jolof wala njaamur wala ndakaaru saalum fu ci waay man di nekk itam na la biir ne de daayira bi am na te ñu ngi koy jottali ñëpp ngir ñu dégg ko mën a bind ci daayira bi di ci dox ci ni nga xam ne noonu lañ ko gën a euh, bëggee itam muy doxin wu rafet wu jekk itam wu jub wu jaadu ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew itam euh, Baye Samba Ndiaye moo leen fi waroon a toogal waaye dafa am ngànt moo tax ñu wut waaye ñoom itam euh, ñi ngi yor seenub daayira foofu ca bitim réew ñoom itam di ko doxal euh, ca na nga xam ne noonu la gën a waree itam kon lii doon ay kaddu yoo xam ne kadduy soññee la kadduy ñaax la itam ngir sama mbokki taalibe ñoo tax may wax bu ko defee ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne mooy daayira bi kon daayira nag jëf lu baax nag kenn ku ci nekk dafa war a xinti woo xam ne boppam lay jëfal ndax bul wax ne kii demut du ma dem kii defut du ma def ndax kenn defalut kenn kenn ku nekk sa bopp ngay defal kenn ku nekk sa bopp ngay defal lu waaye mën di def ci lu baax sa bopp nga defal waaye ku dee ab safaan itam ne la biir ne sa bopp nga defal kon nag kenn ku ci nekk nakam na nga xam ne na nga góor góorlu te kenn ku ci nekk itam boo nekkee ci lu baax war nga caa dugal sa njaboot kon na ñu jël njaboot gi dugal leen ci daayira bi itam bind leen ci itam ñu di ci dox di ci wax itam di ci jëf ndax la sëriñ bi waxoon ne ñaari doom sax de nit ki de bu yoree ay seex muy ñaari doom muy dem toolu àllarba yóbbu benn ba bàyyi benn ba ca kër ga nee na ba mu yóbbu woon su ñibbisee day raw bi mu bàyyi woon ci kër gi kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee kon sama mbokki taalibe yi nañu gën a góorgóorlu ci daayira bi fonk ku baax di ci dox di ci wax di ci jëf itam nag ndax kat yéenee kese rek doyut yéene kese doyut ndax su ñëpp yéenee dara du sotti dara du sotti te yéene dafa mel ni ab fondement kese la yéene mooy fondement waaye jëf moo koy mottali ba mu mën a raase ba mën a làq nit ki waaye su fekkee da ngaa yem ci fondement kese fondement ba tàggalewula aku naaj tàggalewula aku taw tàggalewula aku ngelaw kon yéene doyut da ngay raase boo yoree sa ceeb bi nag su ngelaw ñëwee nga dugg ca su naaj ñëwee nga dugg ca su ab taw ñëwee nga dugg ca kon yéene kese doyut yéene dañ ciy boole jëf soo yéenee ba noppi nag da ngay jëf sa kem kattan la ca def suñ borom subhaanahu wa taala mottali la ko. wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokk mi ñi ngi yëkkat suñ kàddu di ciital am nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Baye Cheikh Diop mi nga xam ne mooy njiitul kër maam Ousmane Diop mi ngi nuyu yéen ñëpp ginnaaw bu mu nuyoo ba noppi nag mi ngi ñaan ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala sëriñ Fallou Bousso mi nga xam ne moo nekk ki moo nekk ci kilifteefu kër si Massamba Kanni gi yàlla yàggal ko fi lool ci wéral ko ak mbooleem ak njabootam ay rakkam ak ak ak i jegeñaaleem ak i àndoom ak bokki taalibe bi yëpp yaa na ko yàlla defal ak wér di jaay Xaadimu Rasuul te dafa dëbb ko kàttan nag euh, ba yéeneem ji nga xam ne yéen na ko ci njaboot gi yéene ko ci Massamba Kanni yéene ko ci Daaru Xadim yàlla yàggale ko ca fekk ñu ñëpp jaay Xaadimu Rasuul Eh, di sant tam ma Massamba Bousso mi nga xam ne moo àndoon nag rakkam jii di sëriñ Ablaat ak sëriñ Cheikh naa Bousso moom ba aussi Alaaji mi nga xam ne doom la ci ñun eh, ci seen jataay bu rafet bii nga xam ne def ngeen ko lii ngeen fi wane tey ak lii ngeen fi feeñal lu am solo la lu rëy la lu waroon lii de jataay bi dafa mel ne mbir mënta am ca ya ca dogal yàlla ba ak siwut waaye waroon naa tàmbal li jiitu euh, tey euh, war naa tàmbal jiitu tey ndax mbir bu fekkente ne daa ci say loxo yàlla seet baaxel ko seddi la ko danga ko war a xam ndax lépp loo am ca xama ko doo xam noo cee wagare ca lépp loo am ca wagoro ca man laa rëcc ca bul rëccee mën naa dugg ci loxo yoo xam dana ko xam ci boobaa dana ca wagar bu ca wagar danga danga koy ñàkk ba faaw kii ñu xam ne nag moom nañ si borom subhaanahu wa taala booleel te jaar ko sëriñtoo Tuubaa mooy Cheikh Massamba Kanni lii leen leeral ci moom dana tax eh, am gi ñu ko am ñu mën cee ñu mën a xam niñ koy téyee loolu seen waxtaan wi waxtaan wu rëy la waxtaan wu am solo la sant nañ ci baax a baax eh, di sant itam bokki fi teew yépp eh, du jar ñuy tudd kenn waaye jataay boo xam ne ren la njëkk am ca biñ ko xalaatee léegi ma tut une semaine mu mel nii mu mel loolu euh, yéene la ak yëg fi mu jëm yëg ngeen ne suñu Ousmane Diop mi nga xam ne moom lañ ko jox ñu def ko ci ëttub ki ko fi nekkal yëg ngeen ne am na lu mu doon simi sàmba am na lu mu doon simi sàmba ndax moom li ngeen wax ci ne si ma sàmba dafa naa wax ne Ousmane Diop mooy jàmbaar loola lu ma lu lu yomba leeral la ndax moom bi sëñ bi nekk ci yéen Jolof moom mu nekk kër baayam ci dëkk ca ca ca ca Jolof dafa ba ñu tudd dëkk ca léeruma lool daan fa bàyyi ko di ñëw ci yéen Jolof di fekk sëñ bi waaye ne fekk sëñ bi daan fekk sëñ bi nag booba taxul mu mu jébbalu waaye xartoon nag si mu sàmbkandi foofee jox soo moom lool ba buñ masaa ñibbi bi ma ngi daleen di woo ci pénc ma ne leen yéen gone yi di ànd ak Ousmane di dem ci murid yee day na ngeen farlu ndax Ousmane moom wóor na ma ne eh, këf nañ ko ba noppi ci boobu jébbaloogut kon nag yéen ñi nga xam ne ay gon ki yéen ànd ak moom na ngeen moytuñu ko ndax bu ngeen moytu ko ñee dañ leen këfaale ci loolu ci la doog a ñëwee sëriñ bi jox ko boppam ci njariñ sëriñ bi boole ko si Masamba Kanni indiwaat lañ lañ seqoon démb foofee benn yoon la delluwaat ci dëkkam boobee mu xam ne fa la cosaanu mooy ba mu jëlee ak njabootam ba nuñ mu wàcc liggéey delluwaatu fa ca jamono yee jox sa bopp doonu taalibe ku dul jàmbar doo ko man ndax jafoo na lool murid léegal yomb doon waaye jamono yooyee ak murid yombutoon jàmbar képp jaayante doon doon taalibe Sëriñ Tuubaa jàmbaare ko mënoon mu ñëw dëkk si Masamba Kan ni fii nekk ci moom bi mu fi ñëw fekk na mu denc mu denc mu denc ba am ba am njaboot kon moom ba mu fi ñëw mag la waaye magam googee nag feeñu ci naan jëfe jëfe nekkutoon ci daara yi tërbiyu de waaye nag bi sëñ Massamba Kane nekkee njaareem yor këram gii ci Touba ndax sëñ Touba sëñ Massamba Kane njëkk sëñ Touba njëkk dëkkal Touba ci la bokk boobu moom la bàyyi ci këram gi ci Touba muy wét li ñu fi nekkoon di leen jàppal ci mu ndox ca booba jafoon na ak yeneen ak yeneen bi mu xamante ne nekk na daaru xadim tam ba mu fa sancee yàlla dimbali na ko ba ni mu wàccib liggéey daaru xadim la ko defe daaru xadim la wàccib liggéey fàttewuma ko kon boole ko boole Serigne tubaa Serigne Touba boole si Moussa Mbakkane ni daf koo dund ba mu jeex tàkk tàkk tàkk Baye Cheikh Diop mii xam ne moo toog tey ñu fekk ci atam yàlla na ko yàlla doole wéral ca yokk aw fanam mag bu fekkente ne am na at yu làq doo ko ñaan mu gudd fa naka ñaan yàlla yàggale yokk aw fanam kon yàlla ñu yàlla yokkal aw fanam ndax yàlla mën naa maye lu ne moom mii ci ñi mujjee tërbee si mu Mbakkane ci la bokk ci daara ji moom lañ mën a xam ne kii kat nekkoon bi si ma sàmba kër ni wàcc liggéey ci bustaan la ko bàyyi ci daara ja muy muy tërëb yow mu bàyyi Cheikh Diop mii yàlla ko yàlla doole wéral ca guddal afanam kon nag sëñ bi lii ngeen def tey lu rëy la lu am sol la ci askan wi ñu bokk ñun muy askan njóobeen ñun ñëpp suñu xol sedd na ci waaye xam naa tam suñu xol xol di sedd sedd seen xol noonu la sedd wala mu ngeen raw ñu ci ñi fi nekk ñëpp tam seen xol sedd na ci ndax lii rek lañ bëggoon bëggoon ñu ñu ñu lëkkaloo di jëflante xamlante du demlante di dikkalante nekk benn nas ni kurus jox ko ka ko ka dawal pere ma di ko dawal lii ne bokkoon ci li koy def kon nag lii nañ ko tàmbali waaye ne bu ko dara dagg nañ fas yéene at mu jot ñu seet kenn ci magi sëriñ Masamba Kanni yi ñu jox ko cër bi ndax loolu day yokk day yokk leer rek euh, euh, mbir mi euh, dafa tolloon ne bu xol seddee la nga wax la nga da la réer man li ma xamante ci ay wax dama réer waaye sama xol sedd na ci yéen baax a baax nem sama xol sedd ni la xolu askanu njóobeen yépp seddee waaye ni la xolu askanu ñu ko aju si mu sama kan loolu sa xol sedde yàlla nu yàlla doole dimbale si dara yee Seex na Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul yàlla nu yàlla doole dimbale yàlla nu yàlla dóomal dimbale yàlla nuñu yàlla musal yàlla nuñu yàlla musal yàlla nuñu yàlla musal ci ñaaw teef yëpp ak fa mën a bàyyi koo mu mën a bàyyi koo ci ay ñaaw teef yàlla nu ci yàlla musal musal ci njaboot gi musal julli yëpp na bokk taalibe yi ca yàlla nuñu yàlla jubal jubal njaboot gi ca jubaluñu nag di jaay Xaadimu Mustafaa suñu xol seen ci baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Cheikh daan nee na ci yéen xolam sedd na guy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngeen jëf Rafah TV ñëppay dañ agréé